asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñi ngi nuyu mbokku taalibe yëpp rawatina ñi ñu bokkal liggéeyu Touba ci kanam bi di ci jaajëfal ñëpp ci liggéey bu am solo bi ñu ciy def ñu bëggoon ñëw indi ay leeral lu jëm ci rapport bi nga xamante ni commission des finances war na koo def ñu bëggoon indi rapport bi nga xamante ni mooy ñetti weer yi muy mois de août septembre ak octobre euh, li nga xamante ni moo fi dugg ci août ak septembre Touba dugal na ci mois de août seize million six cent trente huit mille zéro soixante quinze dugal ci mois de septembre bi dix huit million quatre cent soixante dix mille sept cent boo boolee ñaari weer yi mu nekk trente cinq million cent huit mille sept cent soixante quinze dakaar ci njiitalu Baye Serigne Bousso dugal na ci mois de août bi un million cinq cent soixante dix neuf mille ci mois de septembre bi deux million trois cent cinquante quatre mille neuf cent soo ko boolee ñaari weer yi nekk 3 millions 933 mille 900 orange money bi mooy jees 144 jees 621 jees bi ci mois de août bi dugal na 3 millions 506 mille 914 mois de septembre mu dugal 2 millions 879 mille 492 soo ko boolee mu nekk 6 millions 379 mille 406 tigo kaas bi ci mois de août bi dugal na 758 mille 621 mois de septembre cent cinquante quatre mille deux cent cinquante sept soo ko boolee mu nekk neuf cent mille huit cent soixante quinze euh, ci Saint-Louis ci njiital Serigne Ridial Seck mois de août bi ñoom amuñ versement waaye mois de septembre bi dugal nañ cent quarante mille mu nekk cent quarante trois mille euh, ca Bargny ci njiitalul Serigne Fallou Diop euh, ñoom tamit mois de août bi lañ dugal sept soixante dix sept mille mois de septembre bi amul versement mu nekk 77000 Kédougou ci njiitalul Serigne Modou Lo dugal nañ ci mois de août 261000 mois de septembre amul versement mu nekk 261000 ca Louga ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ ci mois de août bi 138000 ci mois de septembre bi ñu dugal 253000 boo ko boolee mu nekk 391000 ca Kébémer ci njiitalu Serigne Modou Seck mois de août bi amuñu versement mois de septembre bi dugal nañ cent cinquante cinq mille mu nekk cent cinquante cinq mille ca Thiès ci njiitalul Serigne Mbaye Sall dugal nañ ci mois de août bi deux cent mille mois de septembre bi ñu dugal deux cent cinquante mille boo ko boolee mu nekk quatre cent cinquante mille ca Diourbel ci njiitalul Soxna Daba Mbacké dugal nañ ci mois de août bi six cent cinquante mille waaye mois de septembre bi amuñ versement mu nekk six cent cinquante mille ci Mbacké Mbàkke dugal na ci mois de août bi cent vingt neuf mille mois de septembre bi trente mille boo ko boolee mu nekk cent cinquante neuf mille ca Casamance ci njiitalul Serigne Modou xari Guèye mois de août bi dugal nañ cent soixante sept mille deux cent mois de septembre bi versement mu nekk cent soixante sept mille deux cent ca Ross ci njiitalu Serigne Aliou Ñing mois de août dugal nañ soixante cinq mille mois de septembre bi amul versement mu nekk soixante cinq mille ca Goudéry ci njiitalu Serigne Dame Ba mois de août bi dugal na deux cent cinquante mille mois de septembre bi ñu dugal quatre cent mille mu nekk six cent cinquante mille ca maatam ci turu daayiratu baabul ayaati ñoom dugal nañ ci mois de août bi cent mille mois de septembre bi cent mille mu nekk deux cent mille ca Fuuta ci njiitalul Mouhamadou Fadel Dia mois de août bi dugal nañ cent trente mille mois de septembre bi amul versement mu nekk cent trente mille ca Mbour ci njiitalu Serigne Mor Sourang dugal nañ ci mois de août cent quatre vingt dix huit mille mois de septembre bi ñu dugal trois cent deux mille mu nekk cinq cent mille ca Kaolack ci njiitalu Serigne Babacar Mbacke mu kabaro euh, dugal nañ ci mois de août bi neuf cent mille septembre bi ñu dugal quatre cent trente mille mu nekk un million trois cent trente mille versement anonyme mooy versement yi nga xamante ni identifié wuñ leen nga xam ne dañ koo jot rek ci banque bi. mois de août bi dugal na cent soixante mille zéro trente six mois de septembre bi cent sept mille boo ko boolee mu nekk deux cent soixante douze mille zéro trente six achat de devise boobu tamit dafa nekk versement boo xamante ni euh, mën nañoo bañ a identifier ki ko dugal su fekkente ne ci biir liggéey bi am na ko dugal montant bu toll noonu mu nekk quatre cent trente cinq mille zéro quatre vingt six ci mois de août bi euh, mois de septembre bi jotuñ ko ci mu nekk quatre cent trente cinq mille zéro quatre vingt six extourne bancaire mooy frais yi nga xamante ni banque bi da koy dagg di ko delloowaat ci mois de août bi dugal nañ cinq mille huit cent cinquante septembre bi ñu dugal cinq mille huit cent cinquante mu nekk onze mille sept euh, lii euh, ab jaayante la boo xamante ni ci mois de septembre bi la dugg euh, Serigne Amsatou Mbacké mu Serigne Sohaibou ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ñëw na fi seet si Touba ci kanam waxtaan fi joxe ci ay xalaat yu rafet indi na fi cinq cent mille ci mois de septembre bi. Euh, am na soxna suñuy wax tamit soxna xumma moom dafa amoon yéene tabax poste de santé ca Touba Njaareem bi mu gisanteeg ci kanam waxtaan euh, mu ne léegi dafa gis ne lim naroon tubaa ci kanam mi ngi ci ci liggéey bi euh, tañ bokkule ko mu gis ne léegi lim commencé woon ci liggéey war na koo mën a ñëw jébbal ko Touba ci kanam mu toll ci cinq millions ci mois de septembre bi ñaar yooyu bu ñu ko boolee moo nekk 5 millions 500 léegi bu boolee. total bi nga xamante ni moo dugg ci mois de août bi ci zone nationale bi mi ngi nekk vingt six millions trois cent cinquante trois mille sept cent quatre vingt douze mois de septembre bi nekk trente et un millions cinq cent vingt huit mille cent quatre vingt dix neuf total bi nekk cinquante sept million huit cent quatre vingt un mille neuf cent quatre vingt onze loolu moo dugg ci senegal ci diggante mois de août ak septembre lu jëm ci zone Europe. ci coordination Italie mois de août dugal nañ douze millions cinq cent un mille trois cent dix neuf mois de septembre ñu dugal cinq millions sept cent trente quatre mille cinq cent vingt soo ko boolee mu nekk dix huit millions deux cent trente cinq mille huit cent trente ci njiitalul Serigne Mouride Ndaw mois de août dugal nañ un million quatre cent quatre vingt quinze mille cinq cent septembre ñu dugal cent soixante treize mille soo ko boolee mu nekk un million six cent soixante huit mille cinq cent. ca Espagne ci njiitalul Serigne Malick Dieng mois de août bi dugal nañ 1 million 531 mille 174 mois de septembre ñu dugal 492 mille 733 soo ko boolee mu nekk 2 millions 23 mille 907 ca Turc ci njiitalul Serigne Abdoulaye Loum mois de août bi dugal nañ 243 mille 650 mois de septembre bi amul versement mu nekk 243 mille 650 ca Allemagne ci njiitalul Abdou Salam Faye mois de août bi amul versement mois de septembre bi dugal nañ trois cent dix mille neuf cent vingt trois soo ko boolee mu nekk trois cent dix mille neuf cent bu ñu boolee li nga xamante ni moo jugee ci zone Europe ci mois de août bi mi ngi toll ci quinze millions sept cent soixante onze mille six cent quarante trois septembre bi toll ci six millions sept cent onze mille cent soixante seize suñ boolee ñaari weer yi day nekk vingt deux millions quatre cent quatre vingt deux mille huit cent dix neuf bu dee ca zone Amérique ca am ca États-Unis ci njiitalu Serigne Son bu Seck ci mois de août bi dugal nañ 4 millions 531 mille 352 mois de septembre bi amul versement mu nekk 4 millions 531 mille 352 ca Brésil ci njiitalul Serigne Cheikh Ndiaye mois de août bi euh, def nañ versement 1 million septembre bi ñu def versement 1 million soo ko boolee mu nekk 2 millions ca Canada ci njiitalul sëriñ Abdoulaye Ndiaye mois de août bi amul versement mois de septembre bi dugal nañ un million mu nekk un million bu ñu boolee total bi nga xamante ni mooy zone Amérique ci mois de août bi day nekk cinq millions cinq cent trente et mille trois cent cinquante deux mois de septembre bi nekk deux millions soo ko boolee mu nekk sept millions cinq cent trente mille trois cent cinquante deux lu jëm ci zone Afrique. ca Ghana ci njiitalul Serigne Ousseynou Gueye mois de août bi amul versement septembre bi am na 74 850 mu nekk 74 850 ca Guinée Bissau ci njiitalul Serigne Modou Atta Seck euh, mois de août bi def nañ 762 500 septembre bi ñu def versement 756 700 boo ko boolee mu nekk 1 million 519 200 ca Gabon ci njiitalul Serigne Pape Ciss ci mois de août bi. am nañ versement un million six cent cinq mille mois de septembre bi amul versement mu nekk un million six cent cinq mille ca Gambie ci njiitalu Serigne Khadim Thian ci mois de août bi def nañ versement un million cinq cent septembre bi amul versement mu nekk million cinq cent ca Cap Vert ci njiitalu Serigne Abdou Lahad Amar mois de août bi def nañ versement et un mille cent cinquante septembre ñu def deux cent quatre vingt sept mille neuf cent cinquante soo ko boolee mu nekk sept cent quarante neuf mille cent francs ca Bénin ci njiitul Serigne mbay Sène ci mois de août bi def nañ cent soixante mille quatre cent mois de septembre bi amuñ versement mu nekk cent soixante mille quatre cent ca Niger ci njiital Serigne Mam Mor ñoom def nañ versement ci mois de août deux cent soixante quatre mille cinq cent mois de septembre amul versement mu nekk deux cent soixante quatre mille cinq cent ca Afrique du Sud Serigne Mor Dieng ci njiital Serigne Mor Dieng def nañ versement ci mois de août quarante mille trois cent dix septembre bi amul versement mu nekk quarante mille cent dix ca Togo ci njiitalu Serigne Mamoun Dramé ci mois de août def nañ versement trois cent mille septembre ñu def cent vingt et un mille deux cent boo ko boolee mu nekk quatre cent vingt et ca Congo Brazzaville ci njiitalu Serigne El Hadj Diop mois de août bi def nañ versement cent quinze mille septembre bi amul versement mu nekk cent quinze mille ca Maroc ci njiitalu Serigne Albouri Seck mois de août bi def nañ versement quatre cent quarante mille mois de septembre bi amul versement boo ko boolee mu nekk 443000 ca Nigéria ci njiitalu Serigne Alioune Badara Silla def nañ versement ci mois de août bi 631000 mois de septembre bi amul versement mu nekk 631000 ca Burkina Faso ci njiitalu Serigne Lamine Guèye def nañ verse mois de août amul versement euh, septembre bi lañ def versement 625200 mu nekk 625200 ca Côte d'Ivoire ci njiitalu Serigne Mor Faasa ak Thierno Ali Ndiaye mois de août bi amuñ versement septembre dugal nañ un million cent cinquante mille mu nekk un million cent cinquante mille ca Mauritanie ci njiitul Serigne Ibrahima Sarr mois de août bi def nañ versement un million onze mille septembre bi amul versement mu nekk un million onze mille bu ñu xoolee li nga xamante ni mooy total Afrique bi ci mois de août bi mi ngi toll ci sept million deux cent quatre vingt mille huit cent soixante mois de septembre bi nekk trois millions quinze mille neuf cent bu ñu boolee ñaari weer yi day nekk dix millions trois cent neuf mille sept cent soixante. lii yaakaar naa mooy li fi dugg ci diggante mois de août septembre. mu des li nga xamante ni mooy li nga xamante ni Touba ci kanam def na ko ci ay dépenses loolu sëriñ Abdou Fatah yi dina ñëw indi ci ay leeral. asalaamaaleykum wa rahmatullah barke borom Touba mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu ñaan yàlla mu boole ñu jéggal. boole ñu defal ndimbal taw feexu ko dëppoo ci liggéey bi ñu ànd di ko liggéeyal Serigne Touba te yàlla rek tax di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ginnaaw loolu ñu sant ka jaajëfal bu baax sëñ Mafari Ndiaye mi nga xam ne mooy trésorier bu Touba ca kanam ci leeral yi nga xam ne indi na ko ci weeru août encaissé nañ ci 54 millions 950 mille 647 septembre ñu encaissé 43 millions 255 mille 275 weeru août ak septembre li ci Touba ca kanam dugal ci Euh, chantier bu Lansar bërëb bu fajukaay ba nga xam ne Touba ca kanam maa ngi ko fay tabax lim ci dugal toll na ci euh, weeru août douze million cent soixante neuf mille weeru septembre nekk euh, treize millions huit cent soixante mille cent soixante sept ñaari weer yi nekk vingt six millions vingt neuf mille cent soixante sept bu dee bërëb bu fajukaay bi nga xam ne moom la tabax Kër Gol li ci Touba ca kanam dugal ci weeru août. toll na ci deux cent quatre-vingt-quatorze mille ndax daa fekk muy doog a tàmbali weeru septembre toll na ci cinq million quatre cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-sept ñaari weer yi boo ko boolee muy cinq millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-sept bu dee kër euh, gor kër gor euh, boobareel boobareel fa ñuy wax euh, sanc boobareel nekk ca wetu sanc Daaru Salaam ya foofu it Touba Ca Kanam a ngi fay taxawal post de santé boo xam ne ñi koy doog a tàmbali moom ci weeru septembre bi liñ ci dugal toll na ci quatre millions neuf cent quatre vingt ni ñu leen ko waxee woon léegi ca Touba Njaareem am na soxna soo xam ne suñuy wax soxna xumma dafa amoon yéene tabax fa benn euh, poste de santé boo xam ne da ko bëggoon a ànd waa Touba ca kanam waaye ginnaaw bi dafa tànn bàyyee waa kanam ñu def ko mu yëkkati la jàppandi ci moom ci addiyaam jox ko waa Touba ca kanam bàyyee leen ko lim ci joxe woon tolloon na ci 5 millions. amoon na tamit ciment bu fa jotoon a yóbbu Touba ca kanam dañoo xam ne ciment ba bu ñu ko fa bàyyee ba bañ cey jublu day yàqu ñu ne kon nañ jënd xeer fay euh, mulkat boole kook Euh, xeer ba mu moolal ñu ciment ba fa jotoon a nekk loolu li ci Touba ca kanam def ci weeru septembre bi toll na ci six cent soixante cinq mille lu jëm ci camion yi nga xam ne bàyyi ko woon na Italie euh, camion euh, sapeur pompier yi ak ambulance yi li ko indi jëlee ko Italie jëlee ko bokk ci ay ci aéro ci port bi li ko génnee ci port bi frais yi ñu ci def ak la ko jëlee foofa indi ko tuuba entretien bañ ci doon defak ak peinture baak gasoil yaak chauffeur yi ko doon dawal lañ leen fayoon yooyu yëpp boo ko boolee toll na ci un million six cent cinquante mille un million six cinquante neuf yi am na beneen somme supplémentaire dinaa ci ñëw léegi ci kanam ci weeru octobre bi toll ci trois cent soixante et un mille ndax dafa amoon manga gênance ci port bi waaye un million cent soixante neuf mille yi moom lañ ci dugal ci weeru septembre bi. Euh, Safinatul Aman euh, ku ne xam na ne Touba ca kanam ni muy jàppalee kuréel yi nekk ci dëkk bi yëpp di liggéeyal Serigne Touba kenn ku nekk mu fekk la ca la nga nekk ànd koog yow. ci la jëndale Safinatul Amaan ab oto boo xam ne toll na ci 7 millions 500 ngir ñu mën koo dimbanikoo ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba ci Touba. lu jëm ci wàllu communication li ci Touba ci kanam def ci weeru août toll na ci 66000 lim ci def ci weeru septembre toll na ci 495000 ñaari weer yi nekk 561000. Euh, bu ñu ñëwee nag ci yeneen décaissement yi nga xam ne moo ci des yeneen yu sew sewaan yi euh, oto Touba ca bi nga xam ne mooy dox course yi. weer wu dee dañ koy jox cent mille francs yoo xam ne ci lay jënd gasoil boo waree am entretien tamit ci lañ ko ciy def août ak septembre bu nekk jox nañ ko cent mille muy deux cent de membre xam ne yi nga xam ne moom la Touba ca kanam membre yi ngeen xam waajal nañ ci lim boo xam ne pour préparer bañ a am rupture liñ ci def ci xaalis toll na ci six cent six mille ay bloc aussi tamit jënd nañ ci commandé woon na ci ci weeru septembre limu 4000 bloc yoo xam ne 900000 lañ ko commandé. massification mooy ñiy yaatal liggéeyu Touba ca kanam ci biir Touba ak li ko wër euh, di dem ay café Touba ca kanam di dem ci gox yi di leeral nit ñi lan mooy liggéey bi yow mi nga xam ne yaa ngi mooy seetaan sax te gox ba nga nekk nga bëgg liggéey ba liggéey ba yaatu fa boo jokkoo ak waa massification danañ fa ñëw Euh, euh, yaatal fa liggéey bi samp fa ay cellules yoo xam ne ñooy wéy di ko fa dox ñoom nag weer wu dee dañ leen di jox deux cent mil pour seen i frais de déplacement ak euh, yeneen frais yi nga xam ne mooy aju ci liggéey boobu août ak septembre lu ci nekk jox nañ leen deux cent mille boo ko boolee muy quatre cent mille budget bi nga xam ne génnee woon nañ ko jëmee woon ko ci ñaari rakkaay ndar ya ndax xew-xew bu am ci réew mi rek waaye massification boobu dañ fay dem dafa déplacement jël ay nit ñoo xam ne ñoo leen di liggéey ci loolu budget bi jëmoon ci ñaari rakkaay defoon na ci trois cent vingt neuf mille ci weeru septembre la woon keesu euh, siège yu Touba kanam gi dañ fi bàyyi weer wu dee mille pour ñu ci jënd bic kii papier ak ay cartouches yi ñuy ci ci ci li nga ñi nga xam ne ñoo yor wàllu administration bi ak secrétariat bi. cinquante mille yooyu génne woon nañ ko ci weeru septembre weeru août bi xam naa dafay fekkante ak beneen weer ndax léeg-léeg wenn weer dinañ ci génnee ñaari somme chèque bi day yéex a génn ba dugg ca weneen weer wa ca topp lu jëm ci wàllu euh, màggalu daaw ga am na ay chaise yu ñu liyee woon yoo xam ne dañ ko yeexoon a delloo ba fay mujj ñu ci war chaise yooyu sam bañ ca fayoon toll na ci cent cinquante six mille euh, dépôt bi nga xam ne moom la Touba ca kanam di denc ay bagage weer wu dee da ciy fay vingt mille fay nañ ko ci weeru septembre bi euh, fay ko ci mois de septembre bi keesu Touba ca kanam gi waxoon na leen ko léegi dafa baamtu ñaari yoon ci wi ndax génnul ci weeru août bi Euh, am na benn armoire de rangement bu ñu jëndoon ci weeru septembre bi toll ci cent mille francs bu ñu dikkee tamit ci wàllu euh, euh, délégation yi nga xam ne dañuy faral di génn weeru septembre bi amoon nañ délégation bu demoon Dakar doon fa doxee ay boo xam ne seen frais de voyage bi nekkoon na cinquante quatre cent cinquante quatre mille Kër Massar tamit amaloon nañ fa Café Touba ca kanam defoon ci cinquante quatre mille ci voyage boobu salaire personnel bi daf ci am loo xam ne virement bancaire lay doon am ci loo xam ne dañ koy fay direct. neuf cent quarante cinq mille ak quatre cent mille fay nañ ko ci ay salaire ci euh, weeru août xam naa septembre ak octobre dañ koy boole ca octobre ngeen koy dégg entrepreneur bi nga xam ne moo ñu doon tabax moo ñu doon tabaxal toilette bërëbu suturlukaay yi nekk ci ginnaaw morgue bu Touba jotoon joxoon nañ ko avance euh, quatre millions trois cent trente quatre mille ci weeru août. Euh, dépense yi nga xam ne waa bureau Dakar dinañ koy def te dépense yooyu aju ci bureau Dakar ba ci boppam ak loo xam ne ci diaspora bi la jëm doxal ay courses ci waa diaspora bi lu mel ne eh, di leen yónnee ay bologros yi di ca fay eh, eh, envoyé yi nga xam ne dañ koy jaarale ci GP yi ak tamit di jëli seen i xaalis di ko dem yóbbu ca banque ya courses yooyu noonu weeru août fay nañ ci deux cent cinquante cinq mille weeru septembre ñu fay ci deux cent trente sept mille loolu waa Dakar ñoo ko dépensé ci weeru septembre tamit am na salaire yu ñu fay yoo xam ne toll na ci deux cent cinquante mille par virement bancaire. bu ko defee euh, weeru août am nañ benn somme boo xam ne dafay toll ci un million cent vingt huit mille cent dix boo xam ne rectification de solde la dañ koo waat ci dépense yi parce que ci weeru juillet ñu koy régler ci euh, di di préparer rapport mensuel bi ñu leen di jox somme boobu erreur dafa taxoon ñu jël ko ñaar yoon dañ ko jëloon en doublon pour mën a rectifier loolu nag ba amaat solde exact bi loolu moo tax ñu génneewaat ko fii moo tax rectification de solde lañ ko def mu toll ci un million six cent vingt mille cent dix Euh, frais bancaire yi nga xam ne banques yi frais yi dagg moo xam ay agio la wala yeneen frais bancaire da ci am banque yoo xam ne seen engagement li ñu wax mooy dafa xas ba nekk ci seen système ba pare obligatoirement dina ci génn mais après dañ koy extourner mu dellusiwaat mu dellusiwaat loolu nag ñu ngi jaaree foofu di ci soññiwaat yenn banques yi ndax ñëpp respecté wuñ seen i engagement yéen yi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan tey liggéey ci banques yooyu ngeen bàyyi ci xel ba defaat extourne euh, frais yi nga xam ne dagg nge ko te mu toll ci 34 438 ci weeru août nekk 43 053 ci weeru septembre loolu nag mooy globalement neuf comptes banques yi nga xam ne Touba ca kanam am na ko boo ko boolee dafay nekk 77 491 lañ ci dagg ci ay frais loolu kon mooy li concerné dépense su euh, août ak septembre. kon ñu dikkee yéen ci euh, defal leen tënk bi ba mu gën a leer ci bopp ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan li Touba ca kanam encaissé lépp ci weeru août bi. 2000 août 2018 li mu ci encaissé toll na ci 54 millions 950 mille 647 septembre 2018 nekk 43 millions 255 mille 275 ñaari weer yooyu total bi dafay nekk 98 millions 205 mille 922 li nga xam ne dépensé na ko ci weeru août 21 millions 239 mille 548 la septembre 37 millions 183 mille 354 la ñaari weer yi nekk. cinquante huit millions quatre cent vingt deux mille neuf cent vingt deux li Touba ca kanam ci ñaari weer yooyu cinquante huit millions quatre cent vingt deux mille neuf cent loolu nag euh, boo ko génnee ci li mu encaissé woon ci ñaari weer yi toll ci quatre vingt dix huit millions deux cent cinq mille neuf euh, li ci des day nekk trente neuf millions sept cent mille zéro vingt francs loolu bu fekk c'est solde au 31 juillet 2018 maanaam weer wee jàll wi jiitu ñaari weer yi weer waa jàll la desoon ci compte Touba ca kanam yi tolloon 313 millions 6 mille 379 kon bi euh, weeru septembre di jeex 31 septembre li nekk ci Touba compte Touba ca kanam yëpp mi ngi tolloon ci 352 millions 789 mille 399. ginnaaw loolu nag ñu ngi sant bu baax a baax di am mbégte ci liggéey bii di liggéey Touba ca kanam nga xam ne liggéey Serigne Touba bu Serigne Touba nangu la. di ci euh, ziare bu baax ak ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy membre première Touba ca kanam ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp di leen ci jaajëfal waaye di sant ak gërëm nag képp koo xam ne yëkkati nga sa addiya te mooy ñaar téeméer yi Touba ca kanam woote ci ab Serigne bu Mbacké woote ne murit bu mu bokkal pas-pas weer wu dee na nga yëkkati lum néew-néew ñaar téeméer joxe ko addiya ñu ànd liggéeyal ko Serigne Touba ci Touba. ku ci dugal sa rek ñoo ngi lay sant ak gërëm ak jaajëfal waaye nag di beral ak cant ñi nga xam ne jamono bu nekk nag ñooy sonn ngir dajale addi yooyu war a bàyyi ko ci murid di jaayante yooyu di ko dugal ci compte Touba ca kanam bu dee fii ci Sénégal duñu lim waaye ku mel ne soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Abibu moom faaw ñu belal ko ci ak jaajëfal ngir liggéey bu am solo boo xam ne ma ngi ko ciy def ak soxna Fatim Mbay kër sëñ Abibu nga xam ne liggéey bay daje kër sëñ yëpp moom moo koy taxawee ak ku mel ne soxna Mbay ak Jum Daaru Xadim ci waa kër sëñ ak ñeneen ñi nga xam ne ña ngi ko yaatal yëpp ku mel ne Baye Modou Mbaye ku mel ne sëñ Abdoulaye Diaw xidma sëñ Dame Guèye marché Ocass bu ñu duggee ci lim bi day sori waaye ñoo ñëpp ay jàmbaar lañ bitim réew nag moom dama naan waa bitim réew gépp mention spéciale waaye rawatina waa Italie jamono bu nekk moom ñoom ñooy féete kanam di jaare foofu sax di soññee ak di fàttali képp ku ñu seetaan ci seen bis boobu nga xam ne premier décembre bii lay am ca dëkk bu ñuy wax Varese muy ngan goo xam ne alaaji sëñ Tàkku Mbàkke lañ ko fanaan ganale bi yoon moom ko xam sëñ Tàkku Mbàkke xam ne moom mooy Touba ca kanam muy dox mu jël ngan ga nag daal koy jëbbal waa Touba ca kanam ngir ñu mën faa daje woote fa yaatal fa liggéey ba leeral ko mbokk talibé yi ba liggéey bi gën a mën a yaatu ci Italie waaye ci biir Europe waaye ci àdduna bi yëpp muy bis bu am solo boo xam ne képp ku ñuy seetaan ñoo ngi sàkku ci yow nga teewe ko di jaajëfal ak ñaanal bu baax a baax alaaji sëriñ Tàkku Mbàkke suñ borom gën ko dëgëral te wéral ko te mot li yéeneem euh, bu ko defee lu jëm ci loolu mooy li nga xam ne rek bëgg nañ ko ci yokk ci wàllu sant waaye di beral ak cant tamit waa commission des finances ci seen taxawaay ci wàllu finance jamono bu nekk euh, rawatina waa commission sous commission gestion des fonds sëñ Xaadim Diouf euh, Baye Serigne Gueye sëñ Pape Ciss ku mel ne soxna Fat Ndiaye liggéey ci liggéey bu am am solo ñoo ngi koy sant ak gërëm ak jaajëfal di siyaare bu baax a baax waa Touba Info eh, ak eh, njiital njiit li eh, sëñ Fallou Ndiaye nga xam ne en même temps mooy président wu Touba ca kanam ci seen taxawaay ci wàllu vidéo yeeg liggéey beeg positif beeg jàpp gi ci anam gu nekk ñoo leen ciy sant ak gërëm ak jaajëfal bu baax a baax di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah